naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk mbokki Equivox TV téléspectateurs yi nuyooti naa leen siyaarati leen ñaanal leen jàmm te ko ci yéen comme ni muy daan demee rek tey ñu ngi ci mardi maanaam talaata tombeek 6 euh, juillet maanaam juróom-benni fan ci weeru tubaab comme ni ñu koy waxee di le 6 juillet 2021 li ñuy def moom bàyyi leen ngeen dem seetaan yëglekaay yi li ñu indi ñu ñëwaat ak yéen si palaato bi continuer ci waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 6 juillet 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay suñu lamb la xëy doore ko yëglekaay bi di suñu lamb nag tey xëtamu njëkk moom. ka ca xëy fes mooy magi Ama Balde di Zil Balde Zil daal moo xëy tey ngardaajoo yëglikaay bi di sunu lamb seq fa waxtaan wu yaatoo yaatu diggante ma ki nga xam ne nii moom moo di Ibakan Zil Balde nag ka mu xëy njëkk a song du kenn ku dul Modou Lo du daal Zil nee na ko soo bëggee dégg dëgg moom maanaam yow bésu lamb ja moom li l'essentiel que moom li am ba des moom boo dawul di nga xam boo dawul di nga gis lu doya doy war lii daal la Zil Balde wax Modou te na ko daw du la tax a ndax foo nekk ci lamb ji fekk te fu mu la fekk dana la wan loo xam ne dana mel ni ba ngóor jaayee mbàmmate ne nopp yalu dem da nga gis lu méttee méttee métti mel ni ki Jules Baldé daal tey moom xëy na génn rek ab yaram commencé bëgg a jëm ca kaw Modou Lo fas yéene ko ko saw wala boog fas yéene ko ciw loolu mu yëg li bi di suñu tey moo xëy dalal ko mu fay wax yemul tamit ci loolu nee na li am ba des daal nanu xaar bisu Ama Baldé rek Modou Lo Jules ne na jaam jadey maanaam seen saamaan moom ñuy yor ci làmb te Ama daan kondi ci làmb ji nee na kenn mënta wax ba saamaan asamaan ma duñ ko jëlee Guinée Bissau andil ko Modou Lo ndax nee na Modou Lo moom faaw xam ne ni bu ci jógee dina xam ne ñun duñu xam ne moo di ama yemu ca keneen ne zil moom sax ñu leen di wax ay waxam muy Gris Bordeaux ndax Gris Bordeaux zil ne na mbër la moo xam ne moom boo ko laalee mu daanu nga ñàkk koo laal mu daanu daa jàpp ne la moo xam ne daanu moom la gën a yomba def sax ni taxaw kon ne na kooku moom nekkul sax ci seen ay plan wala ñu di ko bàyyi xel loolu waxi zil bale la ba tey du sama ay wax ci biir yëg-yëg bi nga xam ne moo di sunu làmb yemu ca diggante diggante ama ak Lac de Guiers numéro 2 ña fa doon leen su ngeen yeboo ngeen dem te nelaw ndax loolu moom kenn du ko gis ama ngay bëreeg Lac de Guiers 2 zil ne na du tey du waxi suba day nekkut loo xam ne ni luy am la ne na kii di Lac de di Sa ak Balla Gaye 2 ne na seen diggante ak Ama Baldé moom pour waxi làmb zil ne na day dakk parce que nag nekkul loo xam ne lu mën a nekk la tey itam du luy nekk loolu nag du samay wax ba tey zil de mooy wax kenn koo xam ne zil dal na ci kawam di ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux rakk ja Gris de yëglikaay bi xëy na tey wax ak moom mel ni ki nag ba mu amee ndam ci ko Abdou Diouf ba pare moom Gris de daal ka mu dévier wala ka sampal am ndëndam du kenn ku dul Abdou du kenn ku dul Lac de Guerre numéro 2 ba nga xam ne kera mu andi woon Abdou Diouf yëglikaay bi daal xëy na tey laaj ko Gris de ne na ko pare naa de ngir jàkkaarloog ka nga xam ne moo di Abdou Diouf nee na itam wala boog jàkkaarloo ka nga xam ne moom moo di Lac de Guiers numéro 2 moom Gris daal loolu la xëy tey di wax nee na Lac daal nee na ko yow Lac comme yaa indi Abdou Diouf daan naa ko nee na ko kaay nga jël avance bi ma seq ko ak yow nee na ko tamit yow Lac de Guiers li nga war a def mooy nga xam ne Gris Bordeaux du sa nga bàyyi ko mu tranquille te nekk ci li mu war a nekk ndax yow itam jàpp na ne daal ñoom ñaar bokkunu nee na Gris ak Lac Gris 2 na du benn yemu ca moom Gris 2 nee na Lac de tamit su nanguwulee nee na guy gi digganteem ak rëg-rëg maa nga fa taxaw lu fa xew rek nañ ma ci jox kenn donte rëg-rëg daanoon na ko combat bu mujj moom Gris 2 daal loolu la xëy tey wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer keneen koo xam ne moo Gris 2 ñoo bokk écrit ñu koy wax Serigne Ndiaye numéro 2 moom nag combat ba nga xam ne taxawoon na lu yàgg digganteem ak Sokocim mu mel ni ki combat ba nag ka ko taxawal moom moo doon Habib Farhat combat ba nag léegi leer na nañ maanaam la ko leeral mooy combat ba régulariser nañ ko ca CNC ba mu mel ni ki combat ba nag ut daal la fas am la ka ko tëgg nag moom moo di Abid Farhat mel ni kon léegi leer na nañ Serigne Ndiaye numéro 2 Sococim le 4 août lay am yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag écrit ba nga xam ne moom la Serigne Ndiaye 2 bokk muy Fass Ndakaaru moom yëglikaay bi di sunu lamb ñëw na ci weekend bi de nen soo bëggee dégg dëgg daal weekend bi moom ah daa mel ni ki daal gis nañ ci seen bopp bu baax a baax ndax seen ñeenti mbir ya génnoon yépp ku ci ne am ndam moo xam bébé Fass la moom am na ndam ñu ne déet ne waaye général am ndam déet na waay ka nga xam ne nii moom moo de parisien tamit am ndam ci kaw kalso won ko lu mel ni bi diw ba cëg ca fa nga xam ne moo doon ca stadium Iba Mar Diop giri de tëj baal ba daan ka nga xam ne moo di Abdou Diouf moo tax yëglikaay bi jàpp ne day daa mel ni booloo nga am ci diggante fas ak Ndakaaru mu nga commencé nag di wane boppam ndax nag Amadou Kati Diop ma leen yor daal daa mel ni fa muy takk xale ya wala lam leen di diggal ñu di ko def ci lamb daa mel ni mbir ma moom mu ngay leer nañ bu fekkente ne nag ñooñ nga xam ne ni ñoom ñoo di waa fas boom am nañ ay victoire muy ñeent yëglikaay bi ñëwee ci keneen koo xam ne ni moom am na victoire muy mbay guy gi man nekk école de bara jon yëgle kaay bi nee na nag mbay guy gi moom ginnaaw ba mu daane maam balla bu pikin moom la mu xamle ne ba des yi daal la bëgg gaa yi jox ko mu jàkkaarloo ak ñoom maanaam mbër yu la bëgg a wax ci yëgle kaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb ka mu doon bëreel nag di maam balla ci yëgle kaay bi tey xëy na ko seq waxtaan ak ibakan maam balla nag moom la mu xamle ne na bu kenn wax wàllum doole ne na sama digganteeg mbay guy gi doole moom feeñu fa maam maam Balla nag moom moo xëy tey di wax lu mel noonu ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu lamb keneen koo xam ne gis nañ ko ci sunu lamb muy Pape Diouf moom nag mu nga dëkk fa nuy wax Bambey séréer moom nag soo bëggee dégg dëgg daal lamb la tëb wala boog lamb la tëgg lan demee tëbaski la ko tëgg fa nga xam ne moom moo di ca Bambey séréer drapeau Eumeu Sène daal la taxawal keneen koo xam ne nii ci yëglikaay bi ñëw nañ tey fekk ko fa ca rubrique ba ñuy wax rubrique Leewtoo muy Abdou Aziz Ndiaye borom Zador Abdou na ay sport favori am daal bokk na ci lamb hippisme ak wàllum boxe loolu mu ngi fi nga xam ne ni moom moo di ci biir yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb buñ fa jógee dem les arènes les arènes moom daa xëy tey ñëw ci xëtam mu njëkk andil ñu fa ñetti mbër yoo xam ne ku ci nekk daal muy moo xam Eumeu seen la Balla gay numéro 2 Modou Lo la waa des arènes mel ni ki ñoom ñett ñi daal yëglikaay bi dafay xëy di laaj maanaam ni ñu nekk ay bête noire ci seen biir maanaam ku ci ne bu bëggee dégg dëgg daan nga sa morom ñaari yoon la ñaari yoon Balla daan na Modou Lo ñaari yoon Modou Lo daan na Eumeu ñaari yoon yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Gris 2 tamit yëglikaay bi xëy na tey seq ak moom waxtaan moom les arènes mel ni ki nag après victoire ba nga xam ne am na ko ci Abdou Diouf daal Gris daal fi mu nekk nii mu nga xëy daal di wax am na ñoo xam ne nag jàpp nañ ne daal mu ngi ci espoir yi ba tey di bëri ku mel ni Max Mbargane daal nee na place am moom ba tey mu ngi ca biir espoir ya war na faa gën a wan a mën a boog wane boppam nga jaañ moom la mu gis nee na li am ba des daal kii di Garga Mbossé Moussa Ndoye ba ci Sa Thiès daal nee na ñii war nañoo mën a loxo Gris 2 daa jàpp ne loo ci mën di dégg daal yegg si moom def na ko ci ñoom bu baax a baax a baax yëglikaay bi moo xëy tey andil ñu lu mel ne ki noonu mel ne ki nag bu ci continuer ba tey rek maanaam la nga xam ne ni moo war a am le 10 mel ne ki nag démb moom ca Equivox TV maanaam ka nga xam ne moo doon Zal Bawol mu nga doon def la nga xam ne moo di open press am fa nga xam ne moo di ca Rëbës war a bëre caatu yaraax ma nga xam ne moo dëkk ca yaraax caatu yaraax tamit mu nga doon def open press am fa nga xam ne nii moom moo di ca fa nga xam ne moo di yaraax mu mel ni nag fi loola tamit mu nga ca lit TV mel ni kon ñaari mbëri ya nga xam ne Baba Jaw moo leen tëgg ñu nga doon def seen ay open press mel ni kon daal soo bëggee dégg-dégg daal lamb ji nar naa jaxati waaye suba ci àllarba ji ku ne xam na ne Idda ñu ngi tamit day ñëw ak tournoi ba fa nga xam ne moo de ca arène nationale te Fallou Ndiaye tamit day ñëw ci samedi ji ba tey maanaam boo bëggee dégg-dégg ci combat boo xam ne moo war a ci diggante Boy Niang école Balla Gaye ak nga xam ne nii moom moo di doomu Jalaw ma nga xam ne moo nekk kaay baax papa booy jinne ak nga xam ne moo di bébé bis mel ni ki daal làmb ji fi mu nekk nii kon xulle dana jaxati waaye tey nag moom damay santaat yàlla rek dolle ca la ma daan san ndax nag gisaat naa xulle mu ñëw yor caméra bi di monte kon xulle yal na nga gën a wér yal na nga gën a yor yal na la yàlla gën a muccal waaye defal ko bépp doomu aadama ndax nag li tax ma koy wax mooy maanaam ci côté liggéey joxe nga ci cër am nga ci yar te danga koy teg ciw yoon te doo ca boole wax ju bëri te loolu dañ koy soxla ci liggéey rawate na gone jërë ngeen jëf comme noonu ngeen ko déggee loolu mooy ñëw ci yëglekaay yi nuyu naat nuyuwaat naa leen ziaraat laan ñaanalaat leen jàmm sàkkooti ko ci yéen encore une fois amuñu seen fay yéen ñu suivre di ñu déglu waaw foofu ñu tëjee nag dañ fay dellusiwaat mu mel ni ki daal bon xulle moom ku ne xam na ne fii la bokk ci kër gi di caméraman di monteur yàlla defoon mu xaw a am tuuti quelque jagadi loolu nag mooy àddina nit bakkan moom fekk mu ngi dund di tooy faaw des fois mu ay jafe parce que jafe-jafe moom fekk yaa ngi dund si dara dunya da nga koy am. mais nag yàlla na yàlla def rek ku feebar wér rek loolu mu moo jara ñaan kon xulle ñu ngi lay ñaanal wér gi yaram bu baax a baax barkante bi sallallahu alayhi bi yépp nga xam ne tamit même bi nga fi nekkul tamit assuré nañ liggéey bi ku mel ni Balde ah taalibe Serigne Touba ak Gomis taalibe Bamba ñoom ñëpp ku ci ne maanaam la nga mën def nga ko ci weekend bi ba liggéey bi jaar ci yoon donte nekkoo fi yoon hélas tamit demoon na passé ci loo xam ne farata la ndax magam wala petit frère am wala grand frère am daal am na ku ci doon amoon ngénte ca Passy loolu yëpp nekkoon ay farata teg tamit xam nga comme li ñuy wax rek euh, maanaam toujours nga nekk fi c'est impossible même boo wér diwul sax day am bés yoo xam ne doo fi man a ne il faut nga am lu la empêcher yooyu day am si dunia waaye nag heureusement ba saa yu amee rek dina am remplaçant loolu mooy lii ci am solo di nuyu ñëpp ziar ñëpp i jàmm di wax ne tey nag mardi le juillet 2021 boo xoolee tey yëglikaay yi moo xam sunu lamb la moo xam les arènes la Euh, Equivox Lit TV fu ci nekk rek boo fa demee di nga fa fekk ay xibaaru làmba loolu mooy li am bu dee yëglikaay bi di suñu làmb nag moom ko xëy ñëw di fa wax moom moo di Zil Balde xulle Zil Balde daal ah moom daa mel ni làqtuwul Modou Lo de nee na ko soo bëggee dégg dégg de boo dawut yow Modou boo dawul da nga xam la ko wax waaw maa parce que nee na ko boo dawulee daal foo mën a ne Ama dana fa fekk loqatil te bis bu yegg ci sa kaw dóoree moom dana métti ci yow loolu Zil wax na ko. waaw loolu moom ay mooy ay waxam ah loolu nag li liñ ci mën a jàngate mooy moom li mu bëgg lay wax li mu yaakaar lay wax li mu gëm lay wax te ci combat lañ jëm communication bi ci lañ toll bataille de communication ku ci nekk am nga droit wax ak sa adversaire waaye wax ji mooy waxe ci cadre sport parce que li mu wax génnul sport ah waaw boo dawul xam effectivement waaw loolu la gis mais bon xam naa daal seen diggante moom dina metti Ama Modou moom yàlla nañ ko fekkete tal ko waaye Luc Nicolaï tëgg na combat boo xam ne nii ah man Babacar day wax dëgg yàlla ak amam arène nationale sax maa ngi koy imaginer waat ñaari mbër yooyu nga dugal leen biir arène national seen ngàg gàngoor ci supporter seeni cumukaay ak seeni yëngoog seeni yéeni yëngal loolu doy waar waaye nag arène national c'est pour nous lañ cay wax rek mooy yàlla nañ ci yegg ak jàmm Zil yemu ca xamle na ne maanaam lu jëm ci wàllum jaan ji ne na day dikkaat de zil ne ne dañ koy indiwaat amul ku mën a tax bu dañ ko indiwaat waaye zil nag jaan ji moom defe naa ne indi ngeen ko indiwaat ko mu am ay sanctions leen ca fekk kon yaakaar naa est-ce que ñëwaat gi dina mën ko foog ndax defe naa am na règlement yu génnoon ndax jaan jooju tere woon lu bare baree bari yenn animaux yi ñu indi ci làmb ji kon defe naa ne ah bon surtout buy gaañee te jaan moom ku ne xam na ne ak lu mën a xew xulle man day du ma ko jegeñ moom man Babacar Jules nag ne dina ñëw mooy seen ñàngoor moom te ne Guinée Bissau lay jógee moo tax nga xam ne Moodu Ama moom ay lazim yàlla nañ ko fekkee tal ko mais da nga gis bés bu neex a neex te xam naa ne ah euh, ñaari mbër yi ko seq ay garmi lañu ay jàmbaar lañu ay guerrier lañu ci wàllum làmb parce que dañ ko wane ndax euh, Moodu moo jiitu Ama si làmb bariwul nag waaye moo ko jiitu parce que ñoom ñëpp ñoo bokk génération boo xoolee Moodu boo ko day xool ci wàllu taxawaay ci taay ak dayo wax dëgg yàlla mënu ko comparer ak yenn mbër yi ci taxawaay déedéet parce que du bind bu rëy rëy rëy booy wax ci moom waaye ci xam-xamu bëre technicité ak fonk li muy def tax na tey mu nekk ci au sommet de la lutte nekk le roi de arènes te loolu dara mayewu ko lu dul ful la fayda ak nangoo liggéey kon kooku defe naa ne itam du caaxaane bés Ama Baldé nag daa nekk koo xam ne la ma naan moom pakku bi yëre la faalewul ngelaw luy dippi jañ Ama déedéet parce que yàggul ci làmb mais gis nga tey niveau bi mu ñëw ci génération moom la ci yàlla dogal tey muy bëreeg le roi des arènes te loolu dara mayu ko ko lu liggéey liggéey du caaxaane bis bu duggee ci làmb da da maanaam dootul dégg waaw moom bu duggee ci làmb nga xam ne mbër mi ñëw na te ama boo ko fekkee or làmb da nga est-ce que kii ama la waaye saa yu takkee ngembam nga gis ne mbër dëgg takk na ngembam te su demee ci géew la ko fa indi moom kenn du ko ko teree def yaa ngi dégg mu nekk xale boo xam ne tamit xale bu dogalu bu gëm li muy def la kon yaakaar naa daal ñoom ñaar ah xaw fooguma daw am fa de moytu ba daan nag mën naa am ndax làmb naxante la waaw naxante la de waaye war wane ginnaaw wëqit du fa am ndax ñoom ñaar kenn ci ñoom ma maanaam ñun xamewuñ na lool si làmb ful la fayda naxante nag ba daan dina ci am ndax xam naa ne bés boobu itam intelligence dina fa dox waaw yeewute da cay bokk ci bëre boobu de nañ ci bàyyi xel bu nu continuer ba tey ci yëglikaay yi Gris 2 ginnaaw ndamam ci Abdou Diouf Lac de Guiers 2 la dëkk waaw moom mbër de am nga droit dëkk ki nga xam ne moom moo la raw ndax ku ne xam ne tey ci wàllum lamb Lac de Guiers numéro 2 ah bu ñu waxantee dëgg rek moo jiiti Gris moom loolu lay yàlla dogal waaye nag terewul am na droit ne ñu bëree sama mag daan naa Abdou Diouf te Abdou Diouf sa mag yaa ngi dégg yaa ko andi woon daan naa kaay may ma sens loolu ci lamb lañ ko fekk Lac de da koy neex mu ne ko kaay ñu bëre ko neexul itam combat bi du am waxoon naa ko fi ci ay combat loolu day am tax Gris 2 ak Lac de tey bu ñu doon bëree combat bi ci Lac de Guiers lay dépendre tey tey tey bu Lac de Guiers pare naa pour bëree Gris 2 promoteur taxaw mu ne ko pare naa pour bëree Gris 2 boo demee ci moom xulli wax ja duy sori booy dem muy si xaalis bi kon te loolu li koy indi mooy mbër mi daf lay jiitu mais nag Gris 2 xale la boo xam ne macha allah palmarès itam tamit bareegul gàkk-gàkk ndax benn defet la am mooy bi ko rëg-rëg daan te gis nga rattrapé waat na ñëwaat na indi wa amaat victoire bu leer nañ bu gaaw ci loo xam ne matut une taxawaat tey bokkaat ci course bi kon defe naa xale la boo xam ne bu jar a bàyyi xel la moom Gris maam Mame Maodo ñu koy ziar bu baax ndax moom yàlla dafa dogal man duma ma saxu jaar ci Gris 2 souvent parce que tur bi mu yore moo xaw a rëy moom Mame Maodo daan nekk loo xam ne nii tur wu rëy la ñu ciy profité di nuyu famille moom maam Alaaji malik Si yëpp di nuyu taalibe Seex yëpp mais di nuyu jullit Sénégal yëpp ak chrétien yi waaw muy xale boo xam ne tamit ku yaru la Gris ko félicité waaw nee na tamit Lac de Guiers bàyyi Gris mu loolu moom mënta ne Gris pour Lac de Guiers de bàyyi Gris mu tranquille manta ne parce que ñoom ñaar seen combat faw mu am loolu yaakaar naa ne manta ñàkk ndax sénégalais a ngi koy réclamé boobu ba tey Gris de ak euh, Gris Bordeaux ak sa mag euh, Gris Bordeaux sa mag ak ki nga xam ne moom moo di Lac de parce que combat bu askan wi bëgg la waaw terewul nag yow yaa ngi ñëw bu la neexee daal laaj ko am nga si droit Serigne Ndiaye numéro 2 ak Sokosim combat ba yàggoon naw yoon waaye daa nag léegi bay wéy na mbuus ndax yëglikaay bi di sunu làmb xamal nañu ne daal Habib Farhat régularisé na boobu combat pour le 4 août yàlla nañ ci yegg ak jàmm muy combat boo xam ne ah combat bu doyati waar la ba tey Fass ak Guédiawaye waaw ndax soo ko sim ñun biñ koy xam ci école de Balla Gaye lañ ko xamee mu nekk xale boo xam ne espoiru làmb la toog na benn temps boo xam ne bi mu fi amee benn défaite bu métti ci digganteem ak assurance toogaat na xam nga benn temps boo xam ne bëriwul mooy loolu daal waaye xale boo xam ne espoiru làmb la gis nañ ko nag léegi la plupart waa Rufisque daal laa gis muy àndal léegi xaw ma nag ndax dafa dellu biir tëngee ci kii ne foofu wala déet parce mën a guma ko leeral waaye daal gëj naa ko gis mu affiché wu ak waa école de Balla Gaye moom balaa preuve bëri ki démb bi bi gàkku da di bëree doom booy Dakar gis ma fa soo ko sim te kera bi euh, pa kii nu mu tuddati gàmmu gee di bëri soq kera gis naa ko ci tuus mi xamuñu nag mu ngi école Balla Gaye ba léegi wala dafa ñibbi Tëngéej ci ay mbokkam ndax ku ne xam ne ne moom doomu Tëngéej la Rufisque la dëkk waaw mu mel ni kii ba tey bu nu continuer ci écurie Fass parce que li tax mooy yëglikaay bi moo xëy tey wax ne na ah Fass weekend bi itam ñoom neex na ci ñoom de beneen am na weekend bu jàlloon nam neexoon ca parcelle ba ca topp neexewaat noonu ci géej waaye Fass daa mel ni dund nañ lool ci weekend bi ndax yëglikaay bi du suñu lam ne na quatre victoire la am parce que euh, kii daan na Paris am na ndam général Gris 2 ak ki nga xam ne nii moom mooy bébé Fass mel ni kon yëglikaay bi jàpp na ne àndandoo bi am wala gérer ba kati joom ñëw gérer ñu fusionné Fass Ndakaaru yëglikaay bi ne ah li mu gis mooy daa mel ni mu ngi commencé di jur a njariñ waa loolu moom defe ne mbooloo mooy doole su mbooloo te yàlla tax nag la ñu wax waaye waxuñu mbooloom naxante mbooloo mi ñuy wax ne mooy doole mooy mbooloo moo xam dañuy joxante seen ay xol àndandoo yenente jàmm bokk benn bëgg-bëgg ku gis luy gaañe nga réclamé ko ku gis lu lu loo xam yàq mbooloo mi nga denoo sa ko ngeen waxtaane ko jàll dem seen yoon waaye bu dee mbooloom naxante moom lu mu rëy rëy rëy ci yàqu lay mujje kon nag bu fekkente ne mbooloo mooy doole ñoom ñu booloo fusionné ñaari équipe yi di liggéey ah xalaat naa ne mën na leen jural résultat bu baax parce que de am na combat bu mu ci seetaan kere seen muy parisien mu bëri calso kere la mu bëri da leer ne kii moom ak parisien mi ñu daan gis muy bëri am na amélioration ci côté bëri bi ndax boo xoolee calso moo ëpp parisien moo ko sut mais parisien balde kere yaa ngi gis parisien ni muy dooree bal ni muy dooree calso di ko dóor ay guus di ko dóor di ko dawloo di ko dóor dóor ko dóor yu métti ah ko ba calso ñàkk combat combat par décision euh, médicale ah yemu ca yàgg na ca docteur ya trop kon loolu liggéey moo koy maye mbay guy gi moom nee na nañ ko jox ci grosse pointure yi ginnaaw ndamam ci Mame Balla la wax waaw am na si droit ndax Mame Balla la daan bu la neexee laaj Mame Balla ma mu daan nag nee na mbay guy gi sama diggante moom doole feeñu fa waaw loolu daal la wax moom Mame Balla waaw xam naa nag xaw ma doole feeñ na fa xaw ma feeñu fa waaye daal euh, mbër moo xam ne nii bëre ngeen lu yàgg bu lu jëlab diir ngeen di wur wutante di wutante ba mu jàpp la ñaari loxoom dugg ci sa biir yi ngemb mu mën laa yëkkati xulle ba say tànk laal ci suuf mu dóor la ci suuf ah bu doole kon man Babacar du ma xamante lan mooy doole waaye loo ci mën a dégg daal daan na la jël bu leer di la encouragé ndax yow ku ne xam na ne mbër mu mag nga te itam bëre moom kenn du ne mënoo ko macha allah man la Pape Diouf drapeau ama seen ca Bambey Séréer loolu lan tabaski la yàlla nañ ci yegg ak jàmm Pape Diouf di nuyu Séréer yëpp ndax ku ne Bambey Séréer ne ngoy Aliou si la dëkk yooyu ba ba ngay ñëw gaat ñëw ak yaay ñun ñëw digaloo mooy nuyu waa Bambey Séréer yëpp naw rawatina ndaag ndaag bu ama seen séeri biram ñëng moom tamit dëkk foofu ca Bambey Séréer mais di sëy ca Ngunjaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax doomu Bambey Séréer di nuyu fu doomu Bambey Séréer nekk maa ngi leen di nuyu Abdou Aziz Ndiaye borom Sador sama xarit bi sama waa yi sama soppi bi ah moom tey ci rubrique Leewtoo moom lañ fa xëy dalal ay sport favori daal tànn na ko làmb la wax hippisme ak boxe wax na dëgg waaw lamb moom lu neex la te ku ne xam ne ne Aziz lu mu bëgg la et puis mu tamit laa xamuloon woon ak boxe boxe bi tam du mën a déet parce que li tax mooy dama gis ci salle yi muy entraîné tout le temps naa ne loolu lu ama am solo la Aziz moo xëy tey waxee noonu ñetti mbër yoo xam ne les arènes andi na leen muy Eumeu Sène Balla Gaye Modou mel ni ñoom ñett ay bête noire lañ ci seen biir ndax ku ne da nga daan sa morom ñaari yoon Balla daan na Modou deux fois Modou daan na Eumeu deux fois Eumeu daan na Balla deux fois gis nga kon seen diggante ni mu demee xam naa nag du ñàkk benn jour bëri dina amaat ci seen biir ndax li tax mooy amaat na sax ndax ëmma ak Balla war nañu bëriwaat dañuy xool nag ndax bête noire ak ëmma day continuer ci Balla wala Balla da ko yemale loolu bés la ñuy xaar yàlla nañ ci combat ba taxaw na Modou tamit xam naa ne bu ci li mu ne du ñàkk mu amaat ci ñoom ñi kenn wala mu amaat feneen adversaire loolu lépp mën na mel ni kon su ma jógee ci loolu ba tey les arènes ñëw na ci Gris ñoo xam ne gis nañ ko ci lamb daal bu baax Père Max Mbargane directeur technique Lansar na daal Gris 2 espoir la bu leer mu ngi ci biir espoir yi Ngagne Diagne moom la mu xëy xam ne bu i rajo nee na li am ba des daal Moussa Ndoye Garga ba ci Sa Thiès ne na ñii war nañoo mën a wax ak Gris 2 que nag ah jàpp na ne daa mel ni ñoom ak moom ñoo bokk place loolu moom ay waxam la waaw leneen loo xam ne tamit dañ ciy ñëw mu amoon démb Baba Diaw mi tëgg la 10 Saal Bawol doon def open press am ci Rebeuss démb caatu yaraax doon def ca yaraax ñu ne ko combat bu Baba Diaw borom càmm production moo ko tëgg waaye ci samedi jooju tamit Fallou Ndiaye ku ne xam ne tëgg na le 10 booy ñaa numéro de Balla Gaye bu ak ki nga euh, a am le 10 hmm, lu nar neex tamit lu nar doy waar waaye loola ah, avant première bi. Hmm? mooy suba incha allah rabi ci arène nationale idaali ñi ngi ñi ngi production tournoi ba ku ne xam ne suba lay am grand combat bu war a dox ci diggante Ronaldinho ak ki nga xam ne moom moo di Koña 2 tournoi ba nag euh, Yankaaw Junior bi ngeen xam la Kaaw Gourdin bu daali fort ak kan Albarka Kayre bu rëbës ak kan ak nga xam moom mooy caatu Daouda Fall école Balla Gaye kon loolu suba idaali moom lay indi am na fa beneen combat boo xam ne bu nar a metti lay doon keroog toog nañ fii diggante mu dox ci diggante safara wala boog Mbaye Diop numéro 2 ak Ahmed Lagros ak yeneen combat yoo xam ne ci bis boobu lay am mel ni kon ñu ngi production tamit suba indi na lu neex ca arène nationale yàlla nañ ko fekkati tal ko ci profito di nuyu ki nga xam ne nii moo di Ablaye Jigo di kuy jàppale Idaali Ñënga borom wasaaluur ah maa ngi koy nuyu di nuyu staff bi muy liggéey ndoolu ñëpp di ñaanal waa Wasaluur yàlla na seen société bi dem ba màgg ba daj àddina bi parce que ay jeune la ñu ki nga taxawal jeune la te itam vraiment mu ngi liggéey lu am solo ci Sénégal Ablaye jigo ah di ko nuyu di nuyu waa Wassare yëpp ak ñi muy liggéey liggéeyal rawatina Idaal ñu ngi bi nga xam ne moom la yàlla dogal suñu xamante ab Ablaye jigo jaare ci moom waaw noonu la demee di nuyu tamit koo xam ne tey xulle foofu lay tëjee muy suma soppe hmm? Saliou xulle borom Zik FM maa ngi koy bégee bu baax a baax suma soppe boobu Saliou xulle mu sëñ Seydou xulle Saliou xulle ah taalibe borom daaru hmm? taalibe maam Thierno borom daaru yàlla na sa jàmm yàgg Saliou Khoule rakku xaarim Khoule ah Saliou Khoule daal maa ngi lay bàyyeek yàlla rek yàlla na sa jàmm yàgg daal yow di nuyu tamit Serigne Cissé mu sëñ Babacar si moom tamit du suma soppi maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax mais Moussa Dia maa ngi koy nuyu di nuyu Abdou Waxal ñoom Lamine hmm, ak ñoom mataar ñoom ñëpp maa ngi leen di bégee di nuyu képp koo xam ne dangay ngay suivre Babacar ak Equivox TV di la ñaanal jàmm mais encore une fois di nuyu tamit. ña nga xam ne nii ñooy suma dëkku yaay ndax kër nuyu naa fi waa ak yaay te defe naa ku am nga kër baay rek am nga kër yaay kon waa mbomboy maa ngi leen di nuyu rawatina mbomboy reefan képp ku fay yeewoo maa ngi lay nuyu ak mbomboy yu ko wër yépp waaye maa ngi nuyu waa mbomboy reefan sama nijaay yi nekk foofu sama nijaay yi njàmme ngom maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na fan wi gën a gudd yaram wi gën a wér ak suma nijaay aaraba ngom ak ki nga xam ne nii moom moo di suma nijaay zal ngom ah ak suma nijaay Aliou Thiaw ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama nijaay yooyu yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di nuyu tamit suma grand frère bi ma dëkkal fii muy pap may sa ñaan ñu naan ko Pape Mbomboy ah nekk mécanicien en même temps nekk transporteur di ko ñanal yàlla société boobu ah di société transport yàlla na ko yàlla gën a ful barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom mag ju baax la di ko ñaanal yàlla njabootam tamit yàlla teg ci loxo teg ko ci njabootu bépp doomu aadama di ko ñaanal yàlla digganteem ak ay soxna yàlla ay soxnaam yàlla na si jàmm am di nuyu suma yaay yépp waa Mbomboy daal tey mention spéciale rawatina suma grand yi foofu ah ku mel ni Ablaye Thiaw borom Mbomboy Baas moom tamit di liggéey am solo ci dëkk ba maa ngi koy nuyu ak suma grand Ousseynou Thiaw borom étoile musique maa ngi lay bu baax Ousseyn ah maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa kër Bakar yi yëpp rawatina nag ña sant Kama maa ngi leen di béggee ñoom Njàmme Kama ak Pay <laughs> Kama Abdou maam góor ak Moussa yéen ñëpp maa leen di béggee tout la famille Kama.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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk